الحمد لله البديع الأكرم وسلامه أبدا على ما يلتمي Assalamu alaikum, je suis Khalifa Ababakar Mbodj, guide kuréel bi ñu naan Vigenov, du réseau international des jeunes pour une nouvelle vision. muy yëngatu ci walum entrepreneuriat ak citoyenneté ci lolu ndaw Rijnov am xalaat bu yes xalaat bi nga xam ni c'est assez innovatrice moy Rijnov face au candidat Rijnov face au candidat nak dañu bëgg amal li nga xam ni moy rencontre képp ki nga xam ni candidat déclaré nga à l'élection présidentielle au Sénégal ànd ak yow seeti benn jeune entrepreneur moo xam entrepreneur bi ci li muy yëngu day jaay café day jaay ñax wala day jaay yére wala dàll

ngir ñu mën a wuyu ci mel parce que lii lu bees la lu yees la jërë ngeen jëf ndaw Adou Alhamdulillah